soxna gaa yi démb jàkkaarloo nañu jàkkaarloo bu metti man nee woon naa leen soxna aada dina ñëwaat te bu ñëwaatee jël leen soxna noo gisee démb Balla Gaye de Boy Niang sëñ buur kii di Balla jamono yi guddi yi gàllaaj da ko wuy si mu ne jamono yi guddi yi mu nekk nii gàllaaj da ko wuy si maa fi toogoon ne la Balla amul gàllaaj mhm. loo ci gis après waaw parce que toogaat nañu nga ni ma li muy mos waaw ci yoonu defaruwaat mi ngi ci defaru bu rëy kon na booy def très attention. waaye boo mu ne teg xam ne da koy magu jamono ji néew ma la dina ko daan. Mhm. waaye gàlla kese fi mu nekk nii Balla Gaye moom la toogee te mu ngi liggéey. Reug Reug Sa Thiès. <laughs> sëñ buur laaj nga ma laaj bu am solo. Mhm. bàyyi nga ni Reug guddi yi dafa taxaw te daa am gàllaaj. Reug Reug dafa taxaw te dafa am gàllaaj na Sa Thiès def ndànk-ndànk. sinon néew ma la da koy daan mhm. waaye da koo féete ci gàllaaj gën koo ëpp taxawaay jamono ji ci wàllum bëre forza franc franc njaago hmm. njaago boobu fi mu ne bagage njaago la laal xam-xam bu ñuul ku ko maytul dina la saax-saaxee na ànd daal dal soq franc euh, soq ak ak marle gisuma ci gàllaaj jamono ji jërëjëf mbokk internet ya ñoo ngi leen nuyu di leen ziar di leen ndokkeel démb nag dafa am vidéo bu ma dugal dafa dama ci jum ci titre bi ah waaye dellusiwaat naa nag tey indil leen soxna Ada Seexu yàlla ak ay révélation yu doy waar yoo xam ni ci komba bala Gaye 2 Boy Niang Sa Thiès Reug Reug ak ki nga xamante ne que moom mooy euh, Forza comme daje leen sax euh, Franc Ndiago ci diggante Sokh ak Marley son Ada ñoo ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoog ñi lay seetaan ci Bprod Media ak Burkina. inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wasalaatu wasalaamu ala nabiyal muqtada al xaa'in sëñ buur leen da xamal naa la ko làmb ji dina neex dina yëngu waaye na saraxu galaas bëri ak ndox mu sedd mooy ci combat yi combat yi ni yu gaston yi waaw Mm-hmm. xol yi tàng dina bëri ñi mer dina bëri. Mm-hmm. wax ko démb ne la soxna Ada seetaan nga démb signature yi euh, ñu ci bari dañ gis ni Boy Niang dafa mer. ñu gis eh. Balla Gaye jàpp boppam. buur loolu warulaa jaaxal. Mm-hmm. Balla bu fekkente ne ni dafa jekku euh, ñu ngi koy waxeeti Boy Niang ah, xabtal ko par force day mer da ko ëpp gàllaaj jamono ji li koy digal mooy bu fekkente ne daa bëgg a am ndam moom it na jug dem takku ji laxasaayu ndax ku ne xam na ne wàllu sëriñ kenn moomu ko. Mm-hmm. ku la ko gën a ñeme rek moo la ndam. Mm-hmm. kon mystique dëgg-dëgg Soxna Ada lu am la. ah yow it sëñ buur léeg-léeg ñu jàpp nit ba muy joteeg ndayam ji ko sukk jur. Mm-hmm. doo am benn yërmande ci moom. léeg-léeg sëriñ jàpp nit. ba muy joteeg jëkkëram 24 heures sur 24 jàmm du fa am. pour yow ñi ngay xëy xëy dégg ñin la jëkkër ak jabat jëkkër ji jam na kii wala jabat ji jam na kii loolu lan la. wala jëkkër ji xëy na bëggatu ko teg bët moom wala ñu xëy xëy nekk ay ati at xëy xëy sëy bi tas mm-hmm. pour lan la loolu wàllu sëriñ la. Mm-hmm. sëriñ mooy defar mooy yàq ñun nag yàlla nañ yàlla boole ci sëriñ si defar àdduna. démb dama ci def live Modou Modou ni ma jooytu lu mel noonu Soxna def Europe fukki at mënoo am sax terrain boo moomal sa bopp def Europe fukki at sa njaboot fi tas. maanaam def dafa am loo xam man du koy nettali nettali laa ko tuddee mm-hmm. ndax soxna Ada li muy liggéey ku ne xam ne suturaa ci ëpp mm-hmm. soxna gu mu rek boo ko bëggul du ko def mm-hmm. du lu may gënal sax waaye léeg-léeg nga demee nit ki noo nga xamante ni lu baax lu baax a koy fay waaye dama laa xamal ni sëñ buur nite nga Europe munul jënd benn birik teg ci beneen brique mbokkam a ko ko Mm-hmm. est-ce que yaa may dégg. mbokkam mbokkam a ko ko teg. Mm-hmm. xarit dina la ko def. Mm-hmm. waaye li ci ëpp ci mbokk gi la. dinañ la geer dinañ la xeex ba dooli yor lu tase. waa sëñ Buur Europe boo fa nekkee yàgg fa munoo am kayit. sa na. yàqu na de yàqu na de sa morom yow ngay xëy gis ku ñëw tey tey tey ay fan mu ami xam nga loolu lu koy waral. damay wax sama mbokk yi nañuy góorgóorlu pour nit ñi bañ leen a xam. doomu aadama boo ko xamul ba xam jeex doo ko mën a xeex. Mm-hmm. kon ñi lay xeex dañ laa jege. Mm-hmm. lii di mbokk lii di xarit lii di am ni jàmm ñoo ñoo la mën a xeex nga gis ci mm-hmm. gàllankoor. nit ki bu la sësuwul ñoo xul du la xamal dara. damay wax ni nañuy nëbbatu. damay wax ni jamono fi toll. jamono fi yegg. dama bëgg ñëpp jàpp seeni mbir di ko nëbb di ko denc. Mhm. ndax jamono ni toll. wala du ne ku ñëpp xam foo jëm doo yegg ku gëmul xarfa fuufa xarfa fufa ni la fuuf. Mhm. loolu boo ko gisee ci ñi faral di dal ci ñi nekk extérieur ñiy tubaab tubaab lu nga xam mosuñoo gëm wàllu xaatim ak sangat. moom li ma jaaxal soxna Ada mooy ku la ci war a ñu la dama jaaxle te man li ma jaaxal mooy ñu jóge ci àll bi dem Europe problème yi juddu jéer yi wa Ndakaaru yi am dem Europe ko am. lan moo tax loolu sëñ bu loolu waroo ma koo laaj. Mhm. ku ne xam na ni. nitu àll na ma yàlla jéggal joxorante gi day bëri ci biir. ah, ah euh, côté côté kër gi fii sama baay ko moom côté kër gi sama tàntaa ko moom. ah sama wàllu baay ci fi mu bokk ñu nekki doom baay kii bu ñëwee du taxawal euh, du taxawal fii bâtiment kii ni kii sama doom bàjjan la côté bii sama ndey laa bëgg mu dëkkee te dama ko bëgg a toj tabaxaat ko <coughs> waaye ñoom duñ ko fa xaar waay la ñuy def ña ngi koy def ca biir kër ga. Mm-hmm. barki dee moo njaay yaakaar naa am na ku ma jiital ba këram sullil ko fa liggéey ca biir kër ga fa lañ ko def mhm. fii ak liggéey ba doon fa nekk lu mu yor day tas ta du jariñu ta am dara te ko ko yóbbu sama njaboot loolu sëñ buur waru laa jaaxal dañoo bokk léegi ci famille yoo xam ni bokku léegi ci askan woo nga xamante ni gëmatuñu yàlla te wóolootuñ ko gëm yàlla gi ci buntu bi rek la ne waaye li ci seen biir xol boo ko xoolee mooy na bi asinatihim maa sa fi xulubihim hmm. maanaam dañuy wax loo nga xamante ni yeggul ci seen biir xol. Hmm. ñu ëlbatiku ni la doomu aadama bu fekkee dëgg-dëgg gëm dafa nekk ci moom dëgg-dëgg jullit nekk ci moom doomu aadama ni yow buy def lu baax danga caa war a bëgg. dëgg hmm. kat bu fekkante ni nitewul bu fekkante ni nitee dugg da koo dugg ci lay amee xam-xam bu bon bu ñaaw di gàllankoor doomu aadama ni moom maanaam du ma raw du ma romb du dawal oto bu rafet du dëkk ci kër gu baax du sol yërey set googu xol boo nee jullit nga danga koy mbubboo waaye doo jullit te looloo fi bari Soxna kii nee na moom loxo bi dara mënu ci toog lu mu am da yàqu maanaam bu amoon tey ba dajale pour dara loolu day yàqu wala dina dugg xëy ci dugg ci loo xam ne moom du comprendre li mu yoroon fan la jaar. loolu mooy day dugg ci guute rek. Mm-hmm. dafa am ñoo nga xamante ni seeni mbokk leen ko def seen loxo bët dañuy nekk extérieur dañuy liggéey ba dee te du ñu am dara seen loxo bët lu ñu yor day dem ñooñu man soxna aada bu ma leen gisee li ma leen defal ci waxtaan lañ koy def waxtaan. lu xam nga waxtaan waxtaanu xar. Mm-hmm. li ma ciy def ci laa koy def boole ko deret ñu raxasoo ko. lu ñu yorati mu toog lu mu toog kenn mënu ci dara. est-ce que. te sëñ buur baa yëg nga ni guddi yi maa ngi gàllaaj yoo nga xamante ni ñi sonn te yàgg dindilu mm-hmm. te ñu ci ndam. ñooñu laa ko defal. Mm-hmm. ku leen laal yàqu. Mm-hmm. nekkul dañuy fayantoo de waaye dañoo sonn ci dem di fay di dindi liggéey. ay système de défense la aar sa bopp. aar sa bopp. waaw waaw waaw waaw foofu la réew mi toll. ku fi gëm mi nelaw yaa xam. doo puus doo paas. gëmuma te loo yor ñu tasaare ko. yàlla rek laa gëm gëmuma gàllaaj. fii ku nekk da ngay jiital ngëm-ngëm. Mm-hmm. ci sa borom sa digganteeg sa borom takkuwaag ragal yàlla gu mat sëkk. boo ko amul doo dëgg-dëgg jullit. sunu borom day tege waaye léegi nit ñi dañuy tege nattu. ba soxnaa de sarax mën na régler maa la day taale yoo xam nga ci dara. Hmm. nit nekk na Europe ay sarax rek laa ko wax mu def ko. waaw man mii am na ci ku jege. te ko defal boppam. Hmm. wàllu kayitam génn. nit nekk na Europe ñu bëgg koo tàqaleeg soxnaam. Hmm. fa ma jaar ak moom yàggul. léegi moom soxna si comme buroog soow. dëgg wàllu ñaan yàlla daa nekk loo nga xam nit mënu ko fee jëlee. yàlla moo ko wax. ñaan leen ma ma may leen. waaw kon ki nga xamante ne buñ ko ñaanee mu may ñu te ci moom lañ yaakaar ndax lu ñu defal jullitu yàlla ci moom lañ ko jëlee mm-hmm. waaw kon kooku buñ dee may ndam kon nga xam ne lii lu fi nit mënta la. yan sarax la a moytu dafa am sarax yoo nga xamante ni guddi la ko nit joxe mm-hmm. xoolal li tax mu jox la ko mm-hmm. wala nga xool li tax ñu jox la ko léeg-léeg noonu yable ci la seetal jox lay sarax nga jaare fa yàqule ba faawu tëjule am na sarax yu lëndëm lëndëm yow nga xamante ne léeg-léeg nit di la ko digal na nga ko may. ci benn côté baax na. Hmm. ci benn côté doomu adama da koy def même ginaar gu ñuul benn côté doomu aadama nit da koy def waaye am na yenn soxla yooyu toll ñu saraxe loola ko léeg-léeg mën na lëndëmal say mbir nga ni këris. sarax yàpp bu xonk baax na. waaw ndax léeg-léeg doomu aadama tawat yàpp di ko yëkkati. di ko yëkkati. Hmm. léeg-léeg doomu aadama yegg ci tawat lool yàpp di ko yëkkati léeg-léeg doomu aadama yi gént gént gu yéeme yàpp di di di di di la mu gént kon sarax dafa bari ay mbir. ndox ak soow nag moom man ku ci am rawaanam rek man jàppal ni ci man nga bokk. Mhm. xam nga li tax sëñ ñun suñu raw xaan yi boo ci demee ndox ak soow rek boo ko amul doo ci dugg. bàyyi nga ni saraxu mburu kenn du moom. mburu wàllu wërsëg nga ñàkk ci xat-xat. teg leen sept jours di ko def sept mi su ci ku buntam yëpp dëgër ñu tëjal la lépp nag. may mu ngi joxe secret yu garaaw tey. nga ne saraxu tàndarma ci wàllu wërsëg nga ñàkk tëjuleeg ñàkk kayit di lijjanti muy të boo ko dee génne nombre at yi nga yi nga juddu yow. di ko ah, joxe code ko code ko waay code ko. ah kon baax na. code ko code ko damay bëgg nga code ko. ndax damay bañ gaa baax na waaw. waa baa yënga ni sëñ buur buñ la liggéeyee xaatim la ba nga sonn ñetti ndabu laax ci digg ët nga jël raxasuma boobu ko de kon baax na su ma waa yëngalee ba tey damay dikk ak yéen ci sarax rek xam nga soxna Ada moom soxorul te lim mën a génne di ko mayee dafa bëri mais Ada léeg-léeg gis saraxam te doo ko ni ko naan demal nga sëñ buur loolu jaadu na xam nga lita tax xam nga doomu aadama boo koy defal sarax te kóolute amul mm. ay nombre de personnes yu bari heure bu ñu xëyee seen xel seen xol di ne ci yow ñuy jëflanteeg yow ndax dangaa mën heure bu ñu defee sarax si ngay dem di ko foto di leen ko envoyé daan naa ko def waaye jamono ji defalatuma ko kenn mm. léegi nag damay jaral ma balaak say sarax nga di kocc kocc defal ko sa bopp mm-hmm. léeg nga nekk extérieur jox ko mbokk mu nekk fii du la ko mës a defal mm-hmm. te baa yënga ni sarax bu la ko doomu joxe joxee ngir nga sarxel ko boo ko génnewul moom saraxam yegg na yow yaa ci des ndax mbir maa ngi ci sa baat poñe la Hmm. kon ñun sarax bu ñu waay jox ci kàttanu yàlla ak baaxam dinañ la ko defalee nam waree. mais man ma jaaxal loolu nit doomu aadama mooy sentir ni soxna aada war naa jëflanteeg moom war na maa mën a ñaanal mu wax ma ko ma am ci plaisir te bu ma ciy dem du ma ci demee demi mesure dama ciy dem ba jeex ba yëg man wàllu ñaan yàlla sëñ buur jamono bu ma ci duggee dama ciy geer di ci geer ba ci jànkonte ak lu méttee métti. Hmm. barki dee njaay ki doon ñaanal. mi ngi may dégg xam na li ma koy wax li ma ko wax ci rawaanam yëpp bi mu yeewoo dañ ma effectivement lii laay dund mhm. rawaanam yi jamono bu bagage yi génnagul kër gi bu ma xëyee dañ may jàpp tànc ma jàpp sama wàllu yaram bi mel ni lu koy dóor ba mu nooy mel ni lu may tëj ci ba ma nooy mhm. léeg-léeg nga laal rab yoo nga xamante ni su fekkee bëggug dërëm donga la ci bàyyi da ngay bàyyi mu sedd waaye bu fekkente ni résultat rek nga bëgg ndax loolu nga waxanteeg sa bokkum julit non sart yi doo ko bàyyi da nga koy sàmmonteeg moom ba mu jeex taman noonu laa ñaane Mm-hmm. waaw noonu lay ñaanee sonaare seexu yàlla bi ku nangoo sonn ci li muy def la ba tey seet sonaare gars yi ni pétaaw rek mën man leen juum ngeen sonaare mën na li di xool ni sax di wax li ne ci yow te du jar sax mu tiim sëñ buur di mbay ku caa mës naa ànd ak sama kër mm-hmm. ma koy nettalil coow lu am seen kër ci diggante ñaari wujj Hmm. kenn ki yaayam la kenn ki tantaam la bala ca xew yëpp ma di ko yeggale te tiim ma petaaw tiim ma petaaw dama ne ko jàq jamono boo ma fekkee samay aal ma jàkkaarloo yow lu ma la wax doo ko dindi hmm. xam nga kooku fu mujjee naa jël sa numéro nañ déggante ndax foo ma war a jëm a xóot hmm. du ko arrangé kon sëñ buur kii seet ci jàkkaarloog yow kii seet ci téye say baaraam kii seet ci jël baaraamu càmmañam def ci fas kii seet ci ndox kii wàq ba mu xóot mu gas def ci ndox di ci seet xanaa kookoo mën seet. wallaay kooku mën a seet waaw kon jeex na. ba sonaara léegi sax ku rab jàpp wala ku dina jàpp sonaara du laal sax yu du laal yu la jàmm. waaw xam nga dañ ni wala zulumaati wala nuur. Mhm. wala zillil wala haruur. Mhm. kon sunu borom su fi tegee alquran. Mhm. mu nekk shifa. ak rahma. teg fi ñoom maam ay sunguf ak ay yëf. Mm. dafay am foo xam ne jamono joo ma fa tolloo man li yëngal sama deret muy sama rawan li ma wan loolu laa lay defal mm-hmm. sama rawxaan bu ma sentirloo sunguf si ci sunguf si ci laa lay faj nit dikk na fi amee loxo boo nga xam ne sëriñ si ko faj bëri na seede nga ci mm-hmm. sunguf rek laa ko fajee magam ñëw nekk kuy wu mag mm-hmm. alxuraan di ko faj ma yuuxu ko ci noppam muy yëngu di def la muy kon kooku dama sentir ni kii alxuraan moo koy faj ñaari séquence la am yàlla sunu borom di ko may ndam ci wér te hmm. pare gu ma ak moom ndax sama yéene ci moom mooy faj ko ba nekk ci jàmm hmm. bàyyi nga ni rab dina def loo war a teg ci sa loxo mu ni ko fëru yàq ko ñu def ni liggéey la ta fekk rawxaan la hmm. kon ku ràññeetlewul doomu aadama boo koy faj ndox la rawaanam wala safara la wala ngelaw la wala suuf la da nga da ngaa bëgg a faj sëñ bu doo kenn raw xaan boo boo ko maîtriser wul xamoo li ci borom mënoo koo faj. dëgg la man maa la ko wax. dëgg la loolu sama mbokk yi ko fi maîtriser bëriwul eh. ndax duñ ko xam. mbay mbay ma siyaa ji daa àllu tey <laughs> loolu buñ ko maîtriser wul duñ la faj na xamuñu ko mm-hmm. doomu aadama dëgg boo ko dee faj na nga xam tànka may metti wala bañam mm-hmm. gis nga naar boo koy fréquenté da ngay xëy xëy dootoo ko fréquenté mm-hmm. da ngay ñëw këram mun la boppamay metti te fekk tànk baay metti boo amul xam-xam doo ko làmbee doo ko daj. est-ce xam-xam doo ay tappale sañ buur. Mm-hmm. xam-xam du dërëm kese. Mm-hmm. man ñi ma jàppanteel liggéeyanteeg ñoom bu seen sarax laajul yenn moyens ñu di ma ko jox duma leen ko laaj. Mm-hmm. léeg-léeg chaque jour doomu aadama ni man yedd ma ni ma liggéey bi ni nga koy liggéeyee kenn du ko liggéey ni ndax ñi koy liggéeye neneen ñoo ci am nangam ak nangam loolu bu ma am du am. ndax doomu aadama lu may may suñu borom may na ma ko ma noonu mhm, mhm. la doon lekkat ba saxub sikkim bu ko ngooñee dina nekk màgget gu nguni sëllëg sikkim mhm, kon boog sëñ buur may wax ne Balla Gaye fi mu teg tànkam ci guddi yi foofu la bu mu naagu bu mu daagu ndax ku daagu ñu raw la bu wàllu mystique ak wàllu taxaw physique ci wàllu combat yépp mi ngeeg moom patam googu bu leen jaaxal waaye si biir pattam googu bu mu dégg waxi kenn ba mu tax koo naagu ndax ku daagu ñu romb la te hmm. bugguma kenn rombu ko nag bàyyi nga ni soxna Aadama moom it day farfarloo ci mbër da dul sañ a fasal rek <laughs> wa axiru dawaan an alhamdulilah wasalaamualeykum wa rahmatullah